c'était prévisible ah parce que équipe bi ñuy jouer tamit depuis début compétition ba léegi nii lay joué taxaw di xaar donc problème moy pour dougal mom il faut nga naxanteeg ñoom ba dougal mais de toute façon bo déclencher am ben le geste dina yomb quoi mais ñun c'était match bo xamné vraiment ñepp nga doon xaar ni ni la benn di footballé quoi bañ a am patience xam ne match quatre-vingt-dix minutes la donc quatre-vingt-dix minutes boo euh amee baax na waaw le sens. Euh, euh, mais comme d'habitude moom laa lay wax ne la équipe dafa taxaw jonkoon si biir kawam si biir kawam donc c' normal que suñu défense bi ñoom dañuy yéeg si kaw mais ñoom pour nga espace pour dugal mooy problème mais match moom match de 90 minutes là. ba 90e minute daal boo amee 1-0 c'est l'essentiel. L'essentiel, l' essentiel l' a yàqati et surtout de ne pas euh, ba bañ a bi aussi. c' est le premier deuxième mi-temps euh, Bon. Voilà, bon, je pense que il euh, y a eu un bloc bas derrière. Euh, l'équipe béninoise ne, voudrait, ne veut même pas jouer. Ils veulent jouer par contre. Ce qui rend la tâche très difficile pour l'équipe nationale du Sénégal, mais qui est tenté de profiter pour voir, avoir la meilleure stratégie possible pour pouvoir marquer le but. jigéen wala góor bi daal ci dama commencé góor xam naa ne daal jigéen ayoo jigéen dafa laaj nga dugg lu ma ma promo yi nga xam ne orange eh, dafa xew ci eh. moo xew ci jamono ji mooy football bu gaaw bi ma promo yi nga xam ne eh, orange dafa engagement quoi ci li nga xam ne bali quoi wala la def quoi déjà mooy naa la ñu gën a engagé ci offensive bi quoi ñu gën a moytu euh, perte de balle yi c'est toujours comme ça quoi chaque fois. football d'accord. voilà et côté côté distribution bal bi et puis nous mettons surtout peuple de ah, hein. Mais Inch'Allah, ça va venir parce que moi j'ai vu que notre équipe euh, a été vraiment forte. Euh, alors euh, qu'est-ce qu'on va dire pour le deuxième temps Bon, Sadio Mane, il va marquer, il va marquer deux buts, mais il ne faut pas qu'on se précipite, quoi, parce que tout va bien. Moi, je pense que le football, c'est comme ça. Aujourd'hui, ça sera très dur par rapport aux autres matchs, quoi. Mais Inch'Allah, comme... on dit, bon, ça marche

am y ko te loolu yàlla moo ñu may même malgré notre décès de notre joueur bon yàlla mën nañu def saafara ñu gagné match bi tey. dëgg la parce que y a un joueur du Casa Sport qui est décédé il s'appelle euh, Boaro ñëpp xam ko c'est un milieu du terrain c'est un gosse qui joue bien. Il était en, France. Bon, mais il paraît qu'aujourd'hui, le corps, ça, sera normalement, ils vont la monnaie aujourd'hui ici au, Sénégal. Quoi. Mais l'enterrement, je ne sais pas. Peut-être demain ou après-demain. Oui, c'est pour cela qu'on n'a pas pu... Non, le deuxième mi-temps, on va marquer. Tout le monde va marcher bien. Deuxième mi-temps, deuxième mi-temps, suñu poussé rek dina dem incha allah surtout Diawa Bal ndekete moom moom moom na dem na na pousse tam parce que gisuñu ko moom xam nga. daa mel ni Diawa Bal doxul daal. na gën a kii daal day day baax incha a. ñoom moom man dèjà man leen ragal parce que dama gis si face ak lu ma gis si internet bi moom man moom dañu maa a tiital a tiital ah, waaw bi day dugg moom ah, ah. waaw waaye nañ pousse te day dem incha allah rabbi ah, ah sois confiant waaw gëm moom waaw waaw gëm nañ moom wax dëgg yàlla parce yàlla yàlla lañ àndal daal maanaam xam nga ah waaw ale Gaza lañ ale Gaza lañ boo gisee ni ñuy partee bal yi dafa bari mais

ont remplacé Ismaël Sarr ni Ismaël Sarr doon percé et tout moom waroon na ko def mais un peu mon carré mada ci première mi-temps dañu nooy li bëgg ñun duñ leen ko fekk ñoom loolu lañ bëgg boo xoolee ñun ñëpp aju pour défendre mais ñun loolu duñ leen ko may pour série duñ leen ko may dañuy bañ a lu mel ni affaire yi des na parce que attaque bi bu dem day ñëwaat.

mais ñu def remarque ne beneen ñoo bañ a jël risque rek xam nga joué Sénégal yombul xam ne risque bi la bañ instant bi mais dañuy dugal ñun ñoo war di tester bu ci kanam forcer affaire ba ba marqué bii duñ bëgg

c'est une grande fierté, une grande fierté d'avoir euh, félicitations à nos lions. Ah.

problème bon euh, mais je pense que vraiment vraiment là est dû à un manque de réalisme mais je pense que le a su quand euh, euh, vraiment les changements.

la rigueur qu'il faut je pense que loolu war woon woon mun def affaire bi. waaw waaw li ngay wax moo mujj am. waaw ba xool crédit. mais bi de Idrissa Gana Gueye. ah c'est vrai man benn nga am ci affaire bi. mais alhamdulilah sant yàlla bu baax gëmoon naa leen. je suis de tout cœur ak les lions. moo tax te dama leen gëmoon moo taxoon ma ne la dañuy am victoire incha allah deux léegi demi-finale moo ñu dese dañ siy jàpp aussi rek match par match la comme ay madrilène lañ dañuy def comme Zidane nu mu par match la même chose incha allah. ok. waaw kontaan na l'essentiel c'était les trois points te am nañ ko mooy l'essentiel trois wala yëpp trois points la kontaan di féliciter toute la population sénégalaise di féliciter aussi équipe nationale bi coach bi.

Aliou Cissé moom lii moom jëndoo ko ci respect ban défaut gis par rapport ak première mi-temps Sénégal football 45 waaw bii mënul am. bii mënul am waaw. mooy côté côté Diao Balde mooy tardé ba mu match. côté Diao Balde keneen moo tardé. kon gis nga ni Krépin na changé match bi. Krépin ba mu duggee duggee Krépin dafa dugg après Diao Balde Sadio Mané a mu noyyi ko mën a jox ba mu ba mu duggee nag bal bi commencé ñëw Sadio commencé ko door a Bom. waaw léegi lan match par match Sénégal dans la demi-finale par rapport à ci poulu Tunisie mooy Tunisie ak euh, euh, comment dire ak euh, Côte d'Ivoire Madagascar alors lan nga gis par rapport football au Sénégal demi-finale. non demi-finale ñun si mu amee lu ma gënal ñu Madagascar. ah, ah Tunisie non non mais demi-finale finale là Oui, Nari Nari, naari la naari naari pour Sénégal football naari dañuy am dañuy am complexe football naari waaye bi football comme si Afrique. américain yi dañuy football dañuy dab ñu mu neex waaye football naar yi dañ xaw a am complexe kon ñu bañ a wax bu fi yemoon mu neex mu di continuer rek waaw nañ continuer ah. waaw coupe daal lañ soxla coupe lañ soxla